MTV yëpp di nuyu internautes yi man la Gabriel Marie Bob quatrième adjoint au maire de la commune de Kër Moussa chargé des litiges. voilà xam nga venus pour euh, inaugurer galerie d'art bi nga xam ne moom la suñu xarit suñu frère l'artiste Kayonga international bi nga xam ne la Thomas Sankara donc yàlla def tey tamit ñun ñii ñu am privilège am honneur war inaugurer te yàlla def na tamit ndox mu sedd guy ba inauguré nañ ko ba vraiment fête bi liñ ci warone def yépp def nañ ko. donc xam nga ku gis euh, li nga xamné monsieur Kayonga def nako muy ko xamante ko ambitieux la té li tamit avantage la ci suñu commune bi parce que chaque jour gars yi dañu naan problème d'emploi mais xam nga tey Kayonga lu mu def ni moy auto emploi mom moy liggéeyal boppam xarul kenn ci lenn te tey ku gis lii xam nga ne am nañu mu recruter yaakaar naa ñëpp buñ ko defoon ñu amati problème ici au au niveau du Sénégal te tey tamit euh, mën nañ ci ci profité ci occasion bi di ko ne tamit mairie bi am na soutien wu mairie bi yëpp lépp loo xamante ne soxla na ko ci liggéeyam mairie bi incha allah lépp loo xamante ne war na ko ci def dina nekk ci ginnaawam pour jàppale ko di la yëgal ne tamit c'est la première galerie daar bi nga xam ne moo am fii ci suñu commune Kër Moussa te suma ma juumoon diggante Thiès ak Dakar yaakaar naa c'est la seule galerie d'art

coalition bu djup coalition bo xamante dafa am expérience lepp lo xamante nit ñang koy wax à travers la presse dara du ci deug xam nga ñun ñoo tay ji nek une coalition expérimentée élection bu ñu dem yalla def ñu gagner ko ñu ñuy wax ay waxu parité tay ji lepp lu jëte fal wax waxul deug naan ay ñaari jigéen dañoo tegaloo lolu yëpp c'était une stratégie pour nous mettre en mal avec les militants pour mu permettre ñun ñu exposer suñu liste bu ko défé sénégalais yi gis ko ñi nga xamné ne investir uñu la xëy ñu ci mer mais lolu yëpp président de la république jël na ci ay motukaay

wax opinion nationale ak internationale lépp li gars yi di wax dara du ci dëgg xam nga ñun ñii kenn du ñu jàngal luy parité parité bi yàlla dafa def Ablaye Wade moo ko door mais ñun ñii ñoo ko réalisé kon boo kenn du ñu wax na nan la ñuy investir rek du ñu investir local a gën a compliqué fuuf teg nañ ko ci yoon législative li tamit teg nañ ko ci yoon bu dee mbooloo ñun ñoo leen ëpp mbooloo te teg nañ ko ci yoon segam ñoo xamante ne wóolantuñu seen seeni biir def seen i liste ñuy dem xam nga ne ñooñ boo leen tekkee suñu suñu keesu réew mi koy faagaagal da ñoo xamante ne wóoluwuñu leen tay duñ leen wolu suba muy wa yeewi askan parce que lepp luñu wax dara du ci deug Barthélémy Dias may profiter ci occasion bi diko lancer un appel man mi nga xamné man xaritam la mbokam la mu ñew rejoindre la coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xamné Bayam fa la bokk gaay dañ ko sacrifié parce que élan bu mu jël tay bu nekkoon un député maire il allait peser lourd tay il sera un présidentiable mais ce la mooy wa Sonko ñom Khalifa Sall sisu sacrifié ko ñom ñoko def exprès parce que c'est des gens expérimentés à travers KMTV TV lance lancer un message fort nga ñeu rejoindre ton frère ton grand frère le président Macky Sall bi nga xam ne sa pap démb ak barke démb kenn gënu koo xam politique Sénégal kenn gënu koo sonn Sénégal te responsable biir Sénégal segam sa pap moo nekk ci président de la République kon yow da ngaa war a ñëw nekk ci président de la République te nga bañ a bàyyi ñi nga xam ne amaluñ la benn sacrifier la yàq sa lépp parce que lan seen intérêt personnel liste bi nga nekk du liste bu baax

élection de président c'est les élections du président de la république kon on def rek defal da yalla tax président de la république parce que Santé yi nous sumb xam nañ ñoo ngi parce que tey ni nii lépp réalisation président la exposé nañ ko kon bok tey jii nii pour ñu gën ko faciliter liggéeyalam dañ ko wara jox une majorité à l'Assemblée nationale bu ko défé liggéey bi mu sumbon démb ak barki dem mo woyale ko kon bok militant yi nekk Keur Moussa yépp ak l'ensemble de la commune de Keur Moussa ak surtout du département de Thiès ñu soudé wu derrière le maire Momar Ciss derrière le ministre d'État Augustin Tine derrière le président Idriss Seck ñun ñëpp ñu top jappando jappando président de la république Macky Sall lool dal mo don message bi ma doon lancé te yakarna militant yépp xam nañ ko gëm nañ ko te inshallah allah dinañ ko def